ñaanal itam suñu mbokk mi nga xam ne moo nekk ci kanamu njaboot gi fii xaj si ak suñu techniciens yeeg suñu caméraman yi Cheikh Ibrahima yi nekk ak ñun soxna Anta ak Abdourahman ak Ale ak cuun xéewal ñoom Chérif ñu nuyu leen ñoom ñépp nag ñoo fas yéene incha allah delluwaat ci kàddu borom bi rek waxtaanee alquranul karim sunu borom nag waxoon na ni doom aadama bi fa fu fujuraha wa taqwaha nee na doomu aadama daal fexe naa ba xamal ko lu bon xamal ko lu baax bakkenam fa alhamaha xamal na bakkenu doom aadama boobale fujuraha lay mbon ci moom wa taqwaha ak la gën ca moom xam nga nag mu ngi mel ni li ma bëgg a wax nga dem ci docteur feebar yow Cheikh Ibra bi nga demee docteur bi seet la ne la lekk sàngam ak lekk sàngam baaxul ci sa feebar waaye lekk sàngam ak lekk sàngam baax na ci sa feebar mooy fa alhamaha médecin bi xamal na ko fujuuraha la gënul ci moom wa taqwaaha ak la gën ci moom lool nag boo xasee feebar nga dem médecin bi xamal la yi nga war a lekk ak yi nga warta lekk yi nga war a naan ak yi nga warta naan su boobaa nag boo defee li la docteur bi tere du la dal yaa tooñ sa bopp tax nag mu ne kon yow cuun xéewal li mu lay ñaan mooy ba nga xamee li gën ci yow nekk ca doomu aadama nag dafay fekk li nga xam ni moo gën a bon ci moom loola lay sonn xoolal kaani ni mu bonee ak ni ko nit bëggee xoolal lu weex ni mu bonee ci nit waaye gis nga bu ñuy lekk surtout jigéen ñi danañu boole ay kaaneek ay yu kenn xamul njambaan yu weex xat te baaxul ci yow doomu aadama dafa mel ni daal moom li li saf moo ko gënal li lewet te li lewet moo koy faj li saf moo koy gaañ suñu toggee seen ceeb yi def ci bëgg a jëg lu ne cuun xéewal sax su demee fee restaurant ñu di di ko jaay dara danaan def ci kaani defal ma ci aromage defal ma ci lii na wex xatt rek fekk loolu wex gënul ci yow li lewet nga di ko bañ moo gën ci yow yàlla nag nee wan naa la yow Ibrahim yi gën ci yow wan la li gënul ci sa bakken yaay tànn nag moo tax soo demee hôpital ñi ca feebar ñu ci bëri génnoon siwaat lañ leen tere woon lañu defaat te dund nag yemul ak dee dund yemul ak dee parce que soo dee lu la naqari woon day am sa gannaaw fekk yaa ngi dund li la naqari mën naa bañ a am moo tax dee fajul soxla dund mooy faj soxla waaw dee fajul soxla dund mooy faj soxla moo tax yàlla ne bakkanu doomu aadama bi xamal naa ko li gën ci moom xamal ko li bon ci moom kon na góor góorlu def li gën jaamu yàlla gën bañ ko jaamu wax lu baax a gën wax lu bon waaye ñun sunu wax dee la cay baax xanaa sa mbay mbayaan wayaan rek <laughs> wayaan rek taggaate rek waaw Iran daal bu toogee tagg na kan Cheikh Ibra tagg na kan Mour Faye mu nga ca kan maxtaar boodi kenn ku ne ak lan koy taggee rek pour lan yaa nga ci anta ñang anta kay nangam nangam pour bu ko déggee rek na jox Iran dara dama am benn wóoleeri murit bu ñuy tuddee sëriñ fàllu sëy muy turandoo sëriñ Fallilu Mbàkke mu ni ma Iran xanaa xamoo li géwél wax géeram ba jëlee ci moom junni su ko defalee yàlla jëlee ci yàlla milliard mhm. wax na dëgg li nga daj ci nit ba nit jox la junni soo ko dajee ci yàlla jëlee ci yàlla milliard parce que nit di uuti jox la te yàlla daa yor du uuti yàlla lépp ci loxoom yow tey Cheikh Ibra bu ma la seet soxla junni te nekkul ci sa poos yoroo lu dul 2000 da nga naan ma may ma ma ñëw xam nga looy def lebi 3000 yoo ci teg pour jox ma kon yoroo dangay ngay taaba taaba yàlla nag moom daa sëpp lépp isa arada cheyan an yaqaloo kun fa yakun danaan milliard rek mu ñëw ci Cheikh Ibra 500 milliards mu ñëw ci Cheikh Ibra wilaaye mu ñëw ci Cheikh Ibra xam-xam mu ñëw ci Cheikh ra mbaax mu ñëw ci Cheikh Ibra moom dafa jekku lépp moom daal su ma ko doon misaal amul lu ñuy tuddee caisse noire amul caisse noire amul nga xam ne président ko sëpp soxla bu muy faj ca loola lay jëre faj yàlla nag lépp caisse noire am la da koo sëpp rek lu mu bëgg faj faj ok ah, loolu laa bëgg a jàngale yàlla sunu borom daa jekku lépp waaye waaye waaye la Cheikh El Khadim waxoon Serigne Touba dafa ñëw gis moom mbokkam Sidi Hadji Malick ñuy taggaate iraatee Cheikh Ibra rek di way sa maam di way sa lii gàcce ngaalaama dugg na fii génn Seydi Hadji Malick bu ma kenn taggeeti maam mu yàlla di bind sama maam di rey bu ma ko kenn taggeeti sa maamarey diw sa maamarey diw sa diw alaaji Malick ne bu yàlla meloon ni sa maam kenn du dund maam muy rëy ni daa jar puuka sa maamu julli ci géej gi kay jar na waaw kay sa maam lañu jël def ko ci bato bi pour sànq ko moo julli ca géej gi moo demaat ngir yàlla ñëwaat ngir yàlla jar na ku muy sa maam nga tiitoroo ko waaw kay waaye Seydil Hadji maa na maam moo xam ne dañ lay limal ñi mu rey rek ci duñ wax lim defal yàlla kooku daa jar puuka <laughs> sa maama rey diw moo dàq diw sa maama rey diw dàq diw te kat kaay ma wax la Cheikh Ibra fu fu sa maam dàqee dàq nañ ko waaye ki lay wayaan bu la waxee fi ñu dàqee sa maam doo ko jox dara moo tax dañuy seet xare yañ dàqee sa maam ñu nëbb ko ya sa maam dàq rek la ñuy wax rasulillahi li muy foor foor am na yuñ ko gañee jekku nañ ko oxot jëkk ko xoneyin li muy foor foor foor xar yi ñuy yi la muy bari yépp am na yu ñu jekku rasulullahi teewul dañu bind yépp di nettali yépp ci tànt yi wax la badar wax la xonee ni mu métti ña fa daw wax la oxoon ne mu métti nañu ko woree lépp dañ la ko indi dama ne la géwél bu la mën a tagg di wax sa maam ñamu dàq am na fu ñu dàqee sa maam waaye du la ko wax li nga boo tubee ba ne ko ah, xare sàngam naan waaw foofu moom foofu moom du wax mukk la fa xew Serigne Touba gannaaw mënta ñàkk nag tiim jëmm di ko tagg bàyyi leen ma jël rasulullahi nekk géwélam jël xalimaam ak làmmeñam ak xam-xamam ne ko tàggatuma la jëme fenn lu lu ci rasulullahi antel karimu wa annal bu la neexee uddi mu dëhëran ak bu la neexee uddi mu sanaa fii ka dëhëran ba ba addunay tukki ci damay sax ci di la tagg parce que tagg yonent bi moo ëpp ndam ndax madduxul Moustapha fawzun waxun mun yonent bi boo koy tagg boo dee dem aljana te da nga am teraangay àdduna ju la kenn dul yabe oto bu góor di war da ko war kër gu góor di dëkkee da ko dëkkee lu nit di yor ci alal da nga ko yor ti kenn du le ne maa tax nabi rek kay tax fawzun mooy dem aljana waxun mun mooy alali àdduna danga am àdduna am àllaaxira tagg laa waxuma wayaan nag waxuma way yonent bi way yonent bi tagg yonent bi du benn am na ñoo xam ne ñuy wayaan ci yonent bi loolu du tagg wayaan tuddul way da ngay wër di way booba ñiy ut xaaj dañuy dem ci xew yi di way soo wayee ñu jox la nga dem fee way ñu jox la dem fee way ñu ñu ne kii waykat la wayaan la kay Serigne Touba nag ne tagg Alaaji Malik ne tagg ñu ne ñun boobu lañu tànn tagg rasulaay rek tagg yonent bi ci la koom ne ci la adduna am ci la àllaaxira am moo tax fa alhamaha bakkenu doomu aadama bi xamal nañu ko fu juurahaa la baax ca moom la bon ca moom wa taqwaaha ak la baax ci moom nit nag bu xamee li baax ci moom xam li bon ci moom su defee la bon ci moom bu dee daa xaru bu lekk lii docteur wax la ko jabet bëggul nàngam jabet bëggul nàngam jabet bëggul nàngam soo ko moytuwul danga nga dund moytul ah tubaab bi waxul ci cigarette ne day rey bind ci danger teewul ñu ngi koy tux nga xam nit day font bëggul boppa yow liñ la ne day lore ki nga bëgg a dund doo ko moytu léegi lu tax nga di ko def lan la lay yokk fa ëllëmaa fu juraa xamal nañ la ne cigarette dalay lor moytu ko sàngara dalay lor moytu ko mooy yàlla dalay lor moytu ko wa taqwaaha def lu baax nag mooy lay jëriñ lu ci kon buñ la leeralee ñaar yi dangaa war a góor góorlu seet bi la yàlla sant mu baax ci yow nga def ko seet yamu la tere te baaxul ci yow nga moytu ko lu mat a bàyyi xel waaye topp kii rek nag nafsu bi acca rek ratatatatata ratañax nañax nañax rek ba kañ waaw ba kañ adduna itam nag Iran bu xoolee ci baayam xool ci maamam mu góor xam ne falaa jëm bu ma guddee fan màgget rek anta bu xoolee ci yaayam xool ci maamam mu jigéen xam ne li muy ñaan bu ko amee màggat rek waa est-ce que anta bu màggatee dana solati lii ah est-ce que sëriñ bu màggatee dana soloti lii mu sol déedéet moo tax sëriñ Tuubaa ne fa kullu man baadara waxta sixari ilal huda stiraha waxtal kibari nee na boo dee ndaw góor-góorlu lépp luy xeetu njub loo ca mën a dajale dajale ko lépp luy njubadi loo ca mën a moytu moytu ko ñu ne ko sëñ Tuubaa tax mu ne dina tax boo màggatee dem ba doon mag pénc moo toog boo dama ne ñu ne ah te koo yemale mu yem ndax day xam ne jubadiwuloo mag mu fooyee boppam xale bu mu yónni bañ pénc mu toog bu jëlee kàddu kenn du ko déglu te balaa wax ñépp jeexal te bu jëlee kàddu ñépp fa bu ba ko fa fooyee sa bopp ko indi moo tax Sëriñ Tuubaa ne fa kullu man baadara waxta sixari ilal huda istiraha waxtal kibari képp ku góorgóorlu ci sa ndaw def sa njub ci lu baax di góorgóorlu ci lu baax bis boo màggatee noppal njub dafa baax njuba di coono la njuba di coono pur la moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan wax ne ëskay ji ci mag ci njëmbatu ndaw lañ ko jëlee acam ji ci mag ci njëmbatu ndaw ga la jóge yow Cheikh Ibra bis boo màggee dégg askay rek bi ngay ndaw la soo dégg acam rek bi ngay ndaw la ndaw dafa am solo ndaw mooy fondement wu dund bâtiment fondement ba mooy ndaw gis nga boo bëggee étage da koy sóoraale ci ndaw su dee terrasse ci ndaw rek immeuble ci ndaw gi rek bépp bâtiment booy tabax ndaw ga mooy yenu mag ga da koy sóoraale bu di etaas la deey béton bi fer bi ciment bi nañu koy liggéeye bokkul ak bu dul étage moo tax jëlal sa ndaw nga defal ko fondement wu immeuble na dëgër waaye bu ko def fondement wu bâtiment ban ngelaw mën na ko daanee du noonu dundu tabax la tabax da ngay sóoraale sóoraale baax na waaye sooraale woo dara adduna bu tukki la moo tax mu ne képp ku sóoraale ci sag ndaw sag mag bàyyi ko xel bis bu ante demee ba dégg yaay baa mu dégg maam maam album bi kii kan la mu ne ko man la woon booba maa ngi liggéey ci télé benn télé yàgg na torop yaay lii papa maam lii lan la woon booba ci benn rajo laa nekkoon maam lii lan bii benn xew bu ma demoon la waaw fii maam bi ngay nëbb nag non bii sama benn wóllëre la fekk déedéet buddi ba la ba maam di gone buddi yam soloon lay nëbb xale yi su ko def ci nga bari na maire yoo xam ne jël nañ seen album rocc yenn photo yi bu yàgg xotti ko parce que bëgguñ seeni doom xool ko bëgguñ seeni sët xool ko waaw loo xam ne boo ko fotoo ci njànk boo demee meer xotti ko loo loo xam ne boo ko fotowoo ci waxambaane boo demee ci pa xotti ciy fotow nit day sóoraale lu ñëwagu te ñaan yàlla mu jàppale ko yàlla nag mooy rëccal nit nit mënul ci boppam dara bu ko yàlla bàyyi boppam waaye ku yàlla jàppale nga jàll kon yàlla nanu yàlla jàppale nag waaw ku yàlla jàppale foo mën a jaar jàll ku yàlla bàyyi sa bopp il faut nu yërëm la kon fexeel ba yow Cheikh Ibra nga ñaan yàlla mu jàppale la Iran ñaan mu jàppale parce que yàlla bu la jàppalee kenn mun laa tee yegg Abdourahman bu bëggee yegg fa mu jëm bëgg am li mu bëgg am te yàlla ne ko duma la ko jox day sonn waaye du sotti su sóoree ne duma am dara ni ma gisee sama avenir nar na maa sonn te yàlla waajal ko teraanga kenn mënu ci dara waaye waaye bari na ñoo xam ne li nu am bu ñu la waxoon fa ñu jaar doo ko gëm yàllaa ni mel ñoom mësuñoo séentu ne lii nu mel danañ ko mel mësuñoo séentu ne lii nu am danañ ko am moo tax ku yàlla jéggil nga jéggi waaye comme seetaan doo jéggi yàlla nu yàlla jéggil rek loolu rek moo ci am solo sadaqallahu alazim wa balaxa rasuluhu nabil mustafa alkarim sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne li ñu amoon ci waxtu wi jeex na kon nag ñu tàggu leen foofu suba ci waxtu wi loolu moo nekkoon seen tafsirul quran ñu nekk ci sóoratu samsi rek di ñaan borom bi subhanahu wa taala nag mu boole ñu jàmm ñu jéggalu ñépp ci tabaski gi ñaan sunu borom nag mu may ñu fekkee ko at yu bare bare bare bare bari dolli jàmm ci réew mi dolli sutura ci réew mi dolli teraanga ci réew mi te ñu góor lu ci dolli sutura yi di bàyyante xel di nëbbalante di dencalante te bañ ca xaawante sutura am réew bu fa xaawante sutura bëree yàlla dafay jëlee malaanum suturaam te yàlla bu ko fa jëlee bu bu kenn solatul tubay kenn sol bu koy reesa moro kon ñéppay dafa xaawee koo ndoo suñ bëggee nag yàlla muur ñu malaanum sutura man lu ma fekk Cheikh Ibra mu ne ci naa ko ci suturaal lu ma fekk Anta mu ci naa ko nekk Abdourahmane ma suturaal ko ci loolu mooy julli aali lu mu def ma suturaal ko dana tax yàlla suturaal ma kon yàlla nu yàlla muur malaanum sutura bi jaay rasulullah alayhi salaatu wasalaam seen mbokk Iran Ndaw moo leen doon defal tafsir bi ci waxtu wi kon ñu jox leen daje suba ci waxtu wi insha allah asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن rahim قل هو allahu احد allahu الصمد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 asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi ci Sen TV li gën a fës ci xibaar yi procès Luc Nicolaï ak ñeneen ñeent ñu ñu teg ay tuuma ci seen kaw dal dinañu ko dàq ba fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi lee lu ni mel nag li ko waral moo di rek ñàkk déggoo ci wàllu procédure yi avocat wu Cheikh Béthio Thioune yi dañoo rek bañoon nag teewe ni ki tey ji ci suba déglu gi ko juge d'instruction doon déglu ñoom avocat yooyu le la ñuy ñaawlu moo dina rek bi nga xamee ni moom lañu ko convoqué foofee ca kanamu genn waay gu xam-xamam màcc ci wàllu chirurgie daal dina nag formé ci Sénégal lu tollu ci juróom-ñaari chirurgien ñooñu nag la leen tax a jug moo di rek faj képp koo xamante ni doon nga jigéen te ñu mës la xarfal pàcc bu mujj ci xibaar yii li ci yéene kaay yi lay doon ak ay dara ca Thiès la ñu jëm ñeel procès Luc Nicolaï loolu nag daal dinañu ko rek dàq ba fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ñu nar ko amal nag ab audience spéciale lu nu mel li ko waral rek moo di ab puccambaalo boo xamante ni daal dinañu ko woon rek nemmeeku ci wàllu procédure yi ci loolu dinañ ci ànd ak bu ci kaname kii di Ibrahima Ndiaye. ba léegi rek ñuy fàttali ni Luc Nicolaï moom li tax rek ñu daal di koy nag teg ci kanamu yoon moo di rek wàllu lu balu koppar waaye itam lu jëm ci wàllu euh, sinébar goo xamante ni daal nañu ko ci rek euh, boole ak itam lu jëm ci wàllu association de malfaiteurs balegi ci walu yoon lañuy desandi ak itam lu jëm ci walu procès Cheikh beccu ciun niki tey ci suba nak dal dinañu ko won présenter juge d'instruction bi fofé ci ties way ñi nga xamé ni ñoom ñoo di rek ay avocat wam daal di ñu ko won tewlu ñom lañu doon ñaawlu moo di ne li ñu ko rek façon bi nga xamé ni mom lañu ko rek dal di yobé foofu ci ties ñu japp rek ni nag giddee cantaku ni mom li ñu gis ni rek ni fi ak ñom li ñu gis ñom avocat yi moo ne dañ ko rek dañ leen ko waron yëgal ñetti fan la tañuy amal bobu lay euh, rek euh, janok euh, ki di juge d'instruction bi ñu wax ci leneen ca Pikine foofee ca Pàkk Lambaay ngi rek ñu doon wax ci wàllu yu faral di am ak itam nan nañ ci fàggandikoo ni ki démb ci bi dafa am rek ben tak tak bu fa am ba rek lu bëri ci marchandise lu toll nag ci 30 millions ko lu mel rek nak tax ba ñi nga xamante ni ñoo fa doon liggéeyee ànd ak gu Tidiane Diop lakk-lakk bi mu ngi amee démb ci ngoon bu 19 heures weesoo ay simili ci pàkku làmbaay ci kamb ya ay kër barax yu sàkkan lakk na fa ay atelier menuiserie waaye tamit ay place fu ñuy jaayee ay bant soxna si bokk nañu ci loru. sama néeg moo lakk ndax armoire ak lalak ay yére yëpp ñu ci biir. ak sama sama yeneen bagage yoo xam ne bii ne dama ko dencoon ci biir yàlla xam ne ma ko nag ndax damaa génnoon man damaa ñëw rek dañ maa war rek téléphone ne ma fii mi ngi lakk bu fekkee ba léegi nii xamuñu lan moo indi daayo bi ñu jàpp